waaw xam nga man bëgguma parfois di insister trop ci ñeneen ñi. Mhm. ñàkk na ñàkkul ça concerne tout bokk na bokkul mais le conseil constitutionnel moo définir les critères yi nga xam ne nii appliqués par la direction des élections mooy tax nit ki dugg ci parrainage bi ils ont leur clé ils ont un fichier Sénégal nag. Mhm. kenn mësu fee manipuler fichier. ba yàq fi parrainage su jàmbur wala nga yàq fi ay élection la preuve fichier yi ñuy wax yépp di ko salteel ak di ko tilimal moo permettre ñenn ñi ñuy revendiquer ay collectivités territoriales mhm. te delloowuñu ko dont les plus grandes communes du Sénégal moo permettre ñenn ñi ñuy revendiquer ba plus de quatre vingt députés ci assemblée nationale te delloowuñu ko le même fichier électoral avec évolution bi mu am en terme d'inscription ak toilettage bi ñu fi def fichier boobu mooy permettre de filtrer les parrains et dans tous les cas. mais jox ñu ko opposition bi. Ah, et dans et dans tous am na ci nag gis nga moom Mamadou Awa euh, Sénégal nag dafa am dëkku yoon la de. Mm-hmm. les données personnelles ont besoin d'être sécurisées Mamadou Awa. oui mais ñi participent ci élection yi war nañu mën a jox. wala il faut que dossier candidature yi génn conseil yi ko mën a jox. ah am na loo xam ne nii nag on est en état où les données ont une valeur tey Mamadou Awa ci àdduna. Mhm. pétrole ak gaz dañ ñëwaat léegi ci àdduna euh, dino réew yi nga xam ne nii sax dañoo nekkoon ci wàllu sécurité financière dem nañ ba wëlbatiku nekk ci sécurité des données. moo tax le fichier électoral le fichier des cartes nationales d'identité les données personnelles des sénégalais bala ko mettre à la disposition de quelqu'un dafay fekk mu jàll yenn étapes yu sensibles pour nga mën ko mettre à sa disposition mm-hmm. sinon ben day mel ni lépp loo xam ne ni tukkeekoonoo ci diw fii la juddoo nii la juddoo kii mooy juróom bu góor kii mooy waajuram bu jigéen day mel nañ koy tasaare ci biir mbedd mi il faut qu'on fasse très attention dans ce pays là on un état démocratique mais un état intelligent